ñëpp di baal wax ñëpp eh, di jiital ci niw bi fi joge tey muy Mor Fadam Mor Wade eh, ñun ñëpp ñu defal ko ñaan parce que fii mu ne ñaan rek mooy njariñam kenn ku nekk jàng Fatiha bu sel jàng teg ci ñetti Ixlaas yu ànd ak bisimilah rahmaani rahim tudd turu Mor Wade ne yàlla na jar yërmande borom bi defe naa loolu mu loolu amul lu ko ci ma may sàkk ñun ñu fi taxaw ñëpp kenn ku ne jàng loolu ñu ñaanal ko ma sànni ci ñaari moo rek parce que grand jaw male xam naa ko miinante wuñu lool ak ñeneen ñi topp daanaka amatu luñ ciy dolli waaw bisimilah. comme ni ma leen ko waxee ba tey ñu ngi fekk genn wàllam ku wax papa Boy Kairé ne papa Mor Fadam ndax seen jëflante bu rafet tey papa moor Fadam wàcc na ñëw nañ fekk fi papa Boy Kairé du ne lu tax papa ñu ngi lay ziar. Euh, fils maa ngi leen di koy maa ngi leen di delloo ziar di leen nuyu bu baax a baax vraiment di am tey euh, tiis bu metti boo xam ne tey dal nañu suñu ko euh, suñu kaw le monde de la lutte. mun naa ne en particulier man parce que grand bi euh, man ci ay tànkam laa laa luxee ko boobu tout tànk laa di jóge école di ñëw foofu di ko fekk fële ci écurie Mermoz muy euh, fële ci kusum mu doon nit ku baax nit ku yàlla baaxal am yar am teggin maanaam xeetu lu nit di mel ci mbaax mi ngi ci Mor Fadam man mosuma ko gis fu mu mere wala fu mu waxee loo xam naka sudul noonu adduna di dem di dem ba doomam ki ñu wax caatu fadam da ko yëkkati woon teg ko suma loxo te la indi woon loolu xale bi moo xëy na ko man bugguma nekk si benn écrit bu dul écrit booy kayre affaire boobu daal di ko jaaxal mu ne moom xale bi xamul kuy booy kayre xëy na damay xam nga mu ne ko lu waral mu ne ko dama naw papa booy kayre xale boobu vraiment nekk ci man ba barki démb rek ñëw na ci combat bi ñu saafoon te waxtaan mais daal lu ma la si mun mënti wax mooy nit ku baax la ku yàlla baaxal la jullit la gor la te daal nit ku baax la waaw ba tey duñ taxaw foofu de papa. ndax xamante ngeen yéen ñaar bu baax a baax. fonkante ngeen ci ay kàddu. papa Boy Kairé lan la jëflanteeg papa Mor Fadam ci lu rafet. non boo ko doon euh, mooy li ma wax léegi xam nga ki jël doomam jox la ko loolu loolu fa la fa la lu baax ak rafet mën a yem. waaw parce que jur sa doom yor écurie géej waaye am ay écurie man ma dëkk fële ci Medina mun nag mu jël doomam jox ma ko fee sa Medina pour ma téye ko. loolu rek loolu maanaam doy na sëkk waaw loolu rek rafet na xëy na bu naw woon sama jukka man it naw ma koon loolu du am donc moo tax loolu rek mun naa ne doy na rafet na macha allah. Hmm. suñu dernier kàddu fi ñuy taxaw mooy kàddu gu mujj gi lan lay doon. waaw kàddu gi mujj gi li muy doon rek mooy li ma yàgg wax wax naa ko waxati ko euh, état bi nañ jàppale les anciens gloires de la lutte sénégalaise. état bi nañ jàppale mbër yu mag yi nga xam ne ñun ñoom la ñu dese tey bu ñu duggee ci làmb bëgg ko ñun. ñom ñoo tax Mor Fadam a représenté le Sénégal au niveau international yag gagné ay médailles tay médailles yoy waroon diko di parce que fo dem ci aduna bi képp ku mos a international mos taxaw yëkëti sa drapeau dëkk état da lay jël en charge di la di la dimbale ba ngay génn aduna tay ñun Sénégal amuñu lolu nañ xoolaat lolu ñi suñu sak la ñun mom ñom lañu déssé nañ jappalé mag ñi nañ jappalé mag ñi lolu daal la am lu may wax diko lancer un appel aussi au au ministre des sports wax naa ko téléthon Boy Bambara mag ñi ñoy suñu sak te bo xolé ñu jëm ay ay médaille d'or wul nañ leen recenser di leen dimbali mais ni ko do bàyyi ba mu génn ko koy dimbali wala ngay wax lo xam moy lolu loolu jërëjëfati. ci lan leen da nuyo tay nak jeen juuf Kairé lañ fi nekkal mu ñëw ci li nga xayante bi ni mo fi xew muy papa Mor Fadam ko te kenn ku nekk xamoon nako digënté ak papa Boy Kairé. jeen ñu ngi lay ziar. wa ma ngi leen delloo ziar ko di wax inna lillahi wa inna ilayhi xam nga di di masawu ñëpp waaw si xam nga tiis bi ñu yàlla teg teg waaw sunu papa moor Faram waaw di ko ñaanal yàlla yàlla xaare ko àjjana xam nga mu doon sunu papa loolu moom wóor na ñëpp waaw surtout doomam jaw xam ne moom sax sama raq la sunu deret la xam nga yàlla boole ñu wax dëgg yàlla jaadu Faram di ko ñaan di ko jaale waa kër gi yëpp ak Sénégal ak monde làmb yëpp waaw di ko ñaanal yàlla daal xaaree ko àjjana daal waaw. Diène Diouf lañ la ñu mën a wax ci papa Mor Fadam lu mu jëflante moom wala lu mu fekkee ci moom. waaw moom nag mën naa ne si moom sama papa la jëflanteel parce que sama papa léegi dañuy ñëw mu ngi koy wax ñoom depuis Mermoz xam nga ñoom ñoo moo fa nekkoon seen mag di ko conseiller xam nga presque yar ko jàngal ko lépp waaw ñun daal li ñu mën a wax sax surtout di ko roy ci moom mooy yar waaw mag la mais àddina koo wax paa moom daanul wax même ñun buy wax ak yow sax doo ko dégg ndax nànk lay wax ba ci doomam yi sax looloo nekk si ñoom. wax dëgg yàlla mu doon ku baax koo xam ne daal waaw yàlla bu ko cat jiitu daal waaw. dernier kàddu gi mooy nekk lan. waaw dernier kàddu di di wu ñëpp rek monde làmb ak fameem di ñaan yàlla xam nga teg loxo si njaboot jeg ñëpp xam nga di waaw di kontaan seen taxawaay tamit waaw jërëjëf. jërëjëf. ba tey ñu ngi keneen. maam lees moom it ku ko xam xam ko papa moor Fadam maam ñi ngi ñoo ngi leen dolli siyaar di leen di leen di leen nuyu yéen ñëpp di leen siyaar di leen jaale aussi lu ñu bokk parce que ñu ñëpp ko bokk ñun ñëpp ñàkk te àdduna bi encore gën a bees la rek moo am tey lii lu bees la ñu bokk ko bu ëllëgee da nga dégg lu gën bees ndax gën a bees rek moo am Pape Mor Fadam ñun buñ jee xale dañ ko daan seetaan muy bëre donc nag mënuñu lu may wax ci moom ku jullite la làmb lu mu am am am ak lu làmb ji métti métti métti ak lu jël bay waaj am bu heure julli jotee bàyyi na ko yor kurusam dem julli ci man loolu laa xam ci moom loolu laa gis ci moom loolu laa dund moom ci làmb ji ku baax la ku jullite la ku yaarame la ku ma ku ma naw la man parce que ku ma fonk la waaw parce que gis naa nag jullite gi ci moom daal mooy même bu action làmb bi amoon ak lu combat rëy rëy dana ko fa bàyyi dem julli ci waaw te yàgg naa koo seetaan muy bëre nekk xale. bëgg ko lool mu amoon day daye boo xam ne macha allah waaye li ma wax ci àdduna rek gën a bees la rek moo am waaw yàlla na ko yàlla xaaree àjjana yàlla na ko yàlla yërëm sàmm njabootam ñoo ngi leen di jaal daal li ñu bokk looloo gën a gàtt jërëjëf. yàlla na yàlla xaaree ko àjjana di xam ne ku baax la koo xam ne kii li mu bëreeg man bëreeg ko kenn. papa diis na rek nga mais nga dimbali ñu rek ay seede ci moom loo jëf ak moom ci lu rafet. mbëri nag man juróomi yoon maa ngi moom bëri yoon man rek la bëri ci mbëri juróomi yoon e, te fu ñu gisee ñu naan noo bokk ndey noo bokk baay combat gën métti samay combat ci moom ci moom la nekk ma nu ñaar kon nag mooy ñaar dama ko daan xool ne que yow yaay wàllu yu mbëri mun naa ma yaay wàllu yu mbëri man ko yow mi yaay wàllu yu mbëri yow wo nekk mbër yow wali nga waroon sëriñ nga waroon doon ndax lewatam ak baaxam. doo ko foo ko gisee mi ngi leeree foo ko teg teg ba daal ba ñu nga jëkk a gis kafre lu coole bare bare moom xuloo wala kenn ñëpp la ma jàmm ñëpp la ma jam kon daal du koy ñaan yàlla yàlla na yàlla yërëm ko na yàlla jéggal ko barke yonent bi sallallahu alayhi wa te lii aussi misaal bu baax la ku demee waaj pour jaamu yàlla yàlla jël la waaye kon xam nga ne yow mi ni mën a rafet njorta si yow xam ne incha allah lu baax rek nga am incha allah am nañu si yaakaar waaw man message booy lancé lan lay doon. waaw message booy lancé mooy lii war lu bëree bëri parce que xam ni moom moo dem tey ëllëg xam maa si topp xam kenn moo si topp nañu bàyyi xel ni àddina bi saxul lépp loo fi def def lu baax moo gën lu tool yi bëree bëri lu alal ji bëree bëri da nga ko fi bàyyi kon nag li am solo moo di defal lu baax ba yàlla jël bu la yàlla fekk la si lu loolu daal la ñuy lancé kii mboolem koy ancien leader ak mboolem ki mbër mu ndaw nañu xam ne fi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te fi yàggul léegi ñu dem. ba tey nee naa leen seede yi ndeysaan bëri na waaye ba tey dañ ko ciy soxla ñi ngi fekk suñu papa Ibou ko moom it fekk nañ ko bi am na lu mu jëflanteeg moom lu rafet fii ñu dund ko ñoom ñaar tey Mor Fadam làqu na bàyyi ko fi per ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi leen di nuyu di leen delloo ziar. Euh, fi nga wax laa lay tontoo rek euh, Mor Fadam ku nekk war nga ko mën a jaale sa morom ndax dund bi mu dund ak ñun bàyyi woon na bés bi xel premier seede si moom nañ xam ne Mor Fadam taaliba xaadimul Moustapha la di ñaan yàlla euh, ñu teg ko si loxo xaadimul Moustapha mu teg ko si loxo yonent bi sallallahu alayhi ku jullite woon la woon ku baax la woon ku jub la woon ku dëggu la woon ñun daal ñu ngi ñaan man si suma boobu xam naa ne moor Fadam moom ma gën ñu ngi ñaan daal yàlla taas ñu si barkeem ndax moor def nañu ak moom carrière man bëre naa ak moom mais Mor Fadam li ñu wax si moom fii léegi pour mu yëkkati loxoom dóor la sax euh, bëggu ko kon nag kooku yërmande bi mu amoon si doomu aadama yal na ko ko yàlla fay yal na ko yàlla xare ajana seede bi ñu mën a def si moom daal xam nañ ne taalibi la juddit la xaqan ku baax la te lépp lu mu am bokk na ko ak doomu aadama yi kon ñu ngi koy ñaanal yàlla daal yan yàlla teere ko si àjjana ji gën a kawe di jaay Seydina Muhammad. salaamaaleykum mujjee laaj mooy loo jëflanteeg moom lu rafet loo fàttaliku. Mor Fadam li ma jëflanteeg moom lu rafet ndax bi ñu nekkee fii di xeex làmb làmb am problème man si mag ñi nga xam ne si la si ñi ma cité woon si la bokk muy Mor tubaabu joor ndem si yàlla bu naama Touré fépp fu ma gestu gis naa leen fi fépp fu ñu nekk ñu nga fa lépp lu ñu nas maa nga sa biir lépp loo xam ne ñu ngi koy bañ maa ngi ko doon bañ ak ñoom. kon loolu am na loo xam ne bu la nit wooyee muy sa mag woo la si dëgg danga war a sant yàlla ndax munoon na maa woo si leneen lu dul dëgg kon nag ba mu ma woowee si dëgg damay sant yàlla delloo ko loolu seedeel ko si bésam bi dëggu googa mu dëggu woon ak jullit ga mu julli woon yal ko yàlla yërëm te jégal ko. sa boo amoon message booy lan lay doon. message bi may lancé daal ma ne ñun ñëpp nañ xool si Mor Fadam bàyyi xel ne làmb de jeex na am na lu si des li si des nag mooy nañ topp yàlla di tuub di jéggalu nekk jullit akan nekk jullit aqan nag am na nuñ koy defee. am na noo xam ne aussi loolu mooy topp yàlla dëgg ndax jullit laa rek dafa yomb mais nag nga fexe xam lan mooy jullit dëgg dëgg dëgg dëgg yal nañu yàlla defal ñu nekk jullit yu dëggu daal loolu laay joxe message képp koo xam ne daal yaa ngi si milieu làmb nanga xam ne làmb day jeex lu des mooy topp yàlla nañ topp yàlla te muy dëgg lépp luy caaxaan ñu bàyyi ko te tegu si diina saata mustaxima salaamaaleykum